sorti di répondre ki nga xamante si nag mooy premier ministre Ousmane Sonko li waxal convocation bi xamaguñ ko mais nag souvent rek moom ay sorties médiatiques am peut comme ni nga xamante si noonu la ko noonu ko waxee ki nga xam ni moo di Kader di liggéeyee foofee sa santé bi peut-être bokk na ci li nga xamante ne moo waxal ñu daal di koy convoqué ak lu ci mucc am fii ak ngoon dinañ ci daal di xam dara lan moo waxal ñu convoqué ko fii ak ngoon dinañ ci xam daal di xam tout blanc lay def. ngeen Anta Babacar Ngom moo ngi noonu génn bokk ci coalition. Euh, est-ce que mën nañ ko am Anta. jamono gi yaa ngi en direct ñu jis la nga ñëw accompagner si ki nga xam ne moo di bu Bougane Gueye Dany ngeen bokk coalition bi nga xam ne mooy sàmm suñu kaddu. Euh, lan nga yaakaar ne moo waral mbir mi waaye aussi lan moo fi sa taxawaay. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ak yi ñuy déglu. waaw fi ñu toll nii nag mënuñoo xam lan moo waral mbir mi. li ñu xam mooy jot suñu frère suñu xarit euh, ak euh, mbokk boo xamante ne ñun ñoo ànd bokk coalition sàmm sa kàddu jot na convocation ñun nag dañuy ay citoyens yu républicain ay citoyens yu responsable te uh, suñu taxawaay mooy Bougane Gueye Dany bu jotee convocation li mu war a njëkk a def mooy dem wuyu si te moom ci taxawaay boobu la taxaw yi tamit donc euh, mënuñu def lu dul ànd ak moom comme ni ñuy ànd ak suñuy mbokku jullit ànd ak moom comme frère ànd ak moom comme koo xamante ne dañoo bokk lii nga xamante ne taxaw nañ ko muy suñu coalition sàmm sa kàddu dem wuy ji yoon ndaxte yoon bu la woowee comme ni mu ko waxee da ngay dem wuyu ji ba pare ñu soog a xam nag lan lañ koy doyee su boobaa ñu gën a mën a yaatal waxtaan wi. gis nañ coalition bi yëkkati nañ ay kàddu nee nañ ñoo ngi ñaawlu mbir bi ñoo ngi koy andi li xam ne mooy seen soutien ndax da ngeen jàpp ne fi ñu toll nii ñi nekk ci nguur gi justice lañ bëgg utiliser jëmale ko ci ku jege. loolu de bu ñu ko defee mu doon lu ñaaw lool. ndaxte gis nañ ñi population bi taxawee ngir xeex injustice donc man Anta Babacar de fii ma tool nii ah su ma sañoon duñ jël yoon di ko utiliser wala di ko salfaañe pour dal ci kaw doomu aadama yi dinañ dem wuy ji na comme ni ma ko waxee pour xool lu ñu nar mais sénégalais yi fi ñu toll soxla wuñ lii li ñu soxla mooy liggéey li ñu soxla mooy ñu faj seeni ajo li ñu soxla teg yaakaar ko ci réew mi te looloo tax 54 pour cent yi voté leen mooy naka la ñuy def ba dindi sénégalais ci coono ji ñu nekk wante du utiliser yoon ak euh, xeex nit ñi ak doomu aadama yi ci loo xamante ne jaaduwut donc li ci jiitu dem wuyu ji ba pare ñu soog a xam lan lañ koy doyee su boobaa ñu soog a mën a wax lu leer mais suñu taxawaay moom leer na. gis nga Bougane nan la nekkee fi ñu toll nii balaa muy génn mental bi. ah il est très confiant bu ñu demee tamit dina wuyu luñ ko laaj mu tontu ci fi ñu toll nii coow amagu fi yaakaar naa dem wuyu ji rek te ànd ak dal te xam ne que réew mi dal la laaj dal lañu soxla te bu ko bu mu jógee fenn na. ante de façon euh, euh, ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Yérim mu mujjee diffusion de fausses nouvelles diffamation lañ ko toppee. waaw liberté d'expression dafa war a am cim réew démocratie itam dañ ko war a fonk te duñu nangu ko salfaañe suñu démocratie bi réew mënuñu ku wax ñu jël la yóbbu yaakaar naa am na kàddu yu gën a garaaw yu ñu fi déggoo dégg dégg dégg y a un an wala y a deux ans déggaatuguñ ko fi ba léegi yoo xamante ne ay nit jël nañ ko jëmale ko ci président Macky Sall te taxul ñu dugg ci kaso donc fii ñu toll nii daal nañ fexe daal bu buñ utiliser yoon pour xeex nit ñi ak xeex doomu aadama yi te nañu def lépp ba Sénégal nekk si jàmm parce que li ñu daj ci at yi ñu génn bëri na ay doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan te bu ñu sañoon duñ teguwaat ci yoon woowu ñu utal sénégalais yi liggéey loolu lañ gën a soxla maa ngi leen di gërëm bu baax ba kàddu coalition bi nga xam ne moom mooy mooy sàmm kàddu coalition bi nga xam ne moom mooy sàmm donc euh, moom rek moom moo fi moom moo fi nekk donc xëy na mën nañ xalaat ni ñeneen ñi dinañ ñëw te bàtt nañu gaz wala wala wala donc mais gis nañ ko mën nañ xalaat ni dafa ñëw ci ci ci turu turu parti bi mais présence parce que moom li ñu koy faral di gis ci contexte yu mel nii bariwul mais Bougane Gueye Dany également ñu ngi koy xaar depuis depuis boobu ba léegi mais Anta Babacar Ngom bu ñu déggee ci waxam am na benn benn benn benn benn message ba nga xam ne bu euh, ñu xamante ne moom di wàllu mu nekk euh, li nga xamante ne fii wax na ko moom ki nga xamante mhm. bu fekkee aussi moom loola jàpp bon dañ ko koy dañ ko koy nangul parce que en tant que euh, en tant que soxna soo xam dafa yëngu si wàllu politique dañ ko nangul loolu mais mine aussi euh, que ni les temps les temps des hommes en jotee yoon la mais que loolu tamit contexte bi mu laal est-ce que ñii dinañ yomba dinañ yomba dinañ yomba setal donc loolu yëpp di ay wax yi nga xamante ni bon bu ngaan ngay dañu ñu ngi koy xaar Euh, ñu ngi koy xaar bu bu excès ñu ñu jël ko mais comme ni ma ko waxee 9h lañ ko joxoon rendez-vous fële ci cybercriminalité moom mu annoncé woon ni à partir de 8h30 dina fi jóge dem donc 8h30 jot na euh, te demagul ba léegi mais ba tey jërëjëf yéen ñi nga xam ne yéenay suivre mën nañu wax ne. ñoo ngi xaar ki nga xam ne moo di Bougane Gueye Dany njiitalu gëm sa bopp les jàmbaar jamono bi nga xam ne moom la ñu nekk di uh, wax ak yéen liñ leen mën a wax moo di ñoo ngi buntu kër uh, Bougane Gueye dani ba tey di xaar moom moomee mu fas yéene génn wuy ji ndaxte jàppal ne 9h lañ ko convoqué woon fi ñu toll nii il est 9h23 minutes ñu taaxirlu xaar ki nga xam ne moo di leaderu gëm sa bopp moom moomee noonu la fas yéene génnee dem fi nga xam ne moo ca euh, cyber criminalité fu ñu toll ni nag ñoo ngi taaxiru di xool fi fas yéene génne ndaxte li ñu seetlu mooy ñoo seen i dernière réglage loolu la ñu seetlu euh, fi ñu toll nii di xaar. ñu taxelu xaar fiñu tol toll nii jëwriñ ana leader bi fi ñu toll nii ah, fi ñu toll nii ñu mën a jàpp ne dans peu temps ki nga xam ne moo di leader bi dina génn di Bougane Gueye Dany gis ngeen ñoo ngi ci dernière réglage yi fi ñu toll nii loolee li nga xam ne moom lañ leen mën a jox comme information yéen yi nga xam ne yéenuy suivre fi ñu toll nii dañu taxelu rek xaar niñ ko waxee ne gis ngeen Anta Babacar ngoom moom moomee am na kaddu yoo xam ne moom la ci yëkkati moo di ah, da ko soutenir waaye aussi jàpp ne moom moomee da koy ñëw ngir jàppale ko ndax coalition bi nga xam ne moom lañu ah, bokk beneen bi mooy aussi xam na ne eh, ki nga xam ne. ki nga xam ne moo di grand fii rek jàpp si ngir yàlla fi ñu toll nii jamono gi nga xam ne moom la ñu nekk di wax ak yéen dañu taaxiru xaar lépp loo xam ne moo fi fas yéene wàccee ngeen mën ko am en temps la jamono gi nag li ñu leen mën a wax yéen ñi nga xam ne yéen ay suivre ñoo ngi xaar leader bi Bougane Gueye Dany ni ñu ko waxee ne ginnaaw gi nga xam ne mën nañu wax ne euh, bi muy nekk euh, si ku jégi booba tey ñu jàpp ne tey doon na benn boo xam ne ñoo ngi koy convoqué waaye doon